njukkal euh, waa régie tey Babacar Karajo Diagne moo fa nekk sunu ñawkat muy euh, Bara First Class euh, delloo ko njukkal la corruption bureaucratique au Sénégal Cheikh Tidiane Dièye moom moo bind téere bi Cheikh Tidiane Dièye ñu xam ko di yëngu si wàllum société civile fii ci réew mi ràññee ko si lool Euh, mu ngi nii toog tey euh, sunu gan la Cheikh di la nuyu di la dalal la ziar. di la fay bu baax euh, Tunkara di nuyu mbokk yi nekk ci plateau bi di nuyu téléspectateurs yi. Cheikh xam nga man téere bi lan moomu si neex bi njëkk mooy production intellectuelle la. Mm-hmm. te xam nga ñun ñemewuñu production intellectuelle beneen bi mooy maanaam nga jël sa loxo bës ko si loo xam ni. góom la boo xam ne ñun suñu góom la tey bës ko dina metti gaa li nga si dégg li si dégg euh, du léeg-léeg euh, du yomb comme ni koy waxee mais euh, da nga ñaxu rek bind téere bi génn waaw téere wu gëstu la taxaw seetlu li ñuy wax observation boo xam ni itam def naa ko ci diir bu xaw a yàgg ndax ay at Euh, di seetlu mbiru corruption gouvernance en général mais corruption en particulier def ci ay jàngat yu xóot euh, waaye euh, li tax ma jël ko mu di corruption def ko def ci jàngat bi maanaam dama ko jëloon comme porte d'entrée mhm. ndax moom taxuma woon sax jóg ci boppam waaye bëggoon comprendre état nu muy doxee fii ci Sénégal ak ci Afrique sax mën nañu wax waaye bu Sénégal nu muy doxee nga jël ko nag ci histoire am maanaam état ni mu duggee fii ci Sénégal ci wàllu colonisation mhm. maa ngi dégg sànq ci waxtaan bi bi ñuy wax ni Euh, askan wi li koy doxal ak li méngoo ak suñu ay valeur ak suñu ay aada ak cosaan bokkul ak république bi ñu nekk bokkul ak état bokkul sax ak nation bi ni ñu ko tëggee. donc lii daf ma permettre ma dugg ci administration publique. xool lan mooy administration. xool itam corruption euh, bañ a xool rek ni nga xam ne moom lañ koy waxee maanaam le comment muy doxee ci biir réew mi. parce que ñëpp nangu nañu ni lu fi sax la lu lalu la. boo génnee si mbedd yi gis ko boo demee ci administration foo toll mën nga ko gis waaye ma jéem a jàngat lan mooy sabab bi. le hmm. pourquoi maanaam boo xoolee ci nit ki. ci ci wàllu boppam l'individu nga xool ci structure administrative ci boppam ak ay réglementation nga xool histoire administration ba mu fi duggee ci jamonoy tubaab bi ba bi ñu jëlee indépendance def naa jàngat ci Senghor ci euh, président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade ba ci président Macky ku ci nekk ci ñoom ni mu yoree état ni mu yor ni mu defee gouvernance ak ni mu engagé woo ci xeex ger waaye tamit lajj bi nga xam ni ci fin bi ci la ñu lajj parce que boo koy seet daanaka ñoom ñëpp ku ci nekk da nga échoué daanaka ci liitu xeex bi nga parce que da ngay da ngay leeral si téere bi ne ñun suñu état yi ni muy doxee dafa nekk surtout si logique clientèle. logique clientélisme moom mooy euh, yaama neex wala ñoom ñoo far. ñun ñoo bokk fu ñu dëkkoon euh, yow dama bëgg nga jàppale ma wala jàppale woon nga ma lii laa la lii laa la koy faye loolu mu opposé wu ak logique euh, administrative bi nga xam ni dafay nekk si wàllum rationalité wàllum développement léegi ñun ger daf daf fi nekk parce que ñun ñun guerre ñu dafa yomb. Euh, du du bu ñuy wax bi ñu dafa yomb du nekk ci suñu aada du nekk suñu cosaan du nekk suñu diine du nekk ci suñu. suñu suñu état la waaw ci état bi ni mu ni mu ni mu tëddee la ni ñu ko mooñee parce que dañuy damay wax ci téere bi nii. li fi nekk di état mooy état bi nga xam ne moom la tubaab bi indaale ci ay bagage bi muy ñëw Sénégal fekkoon fi ay royaume yoo xam ne neneen la ñuy doxee mm-hmm. fekk fi ngëm-ngëm ci li nit ñi di gëm ci seen diine ak ci seen aada ak cosaan lu wuute ak li ñuy wax l'état légal rationnel administration xam nga dañ ko tënk ci ay ay charte ay réglementation ay procédure yoo xam ni agent public yi ci loolu lañ leen di tàggat bu ñuy dem ci seen bureau bu ñuy jógee école ba bi ñuy liggéey si dañ leen tàggat ci ay procédure ak ay réglementation loolu mooy l'administration publique waaye ñoom nag ñuy ay ñoo xam ni dañu nekk ci société sénégalaise askano foo xam ni dafa am yeneen norme yuy dox famille euh, ñi nga bokkal say mbokk ñi la jege ba tax na sax doo gis benn sénégalais bu jóg ni maa ngi dem ci administration wuti kayit mmh. bu jéemul xool ba pare ñi mu xam ba bu demee am feneen fu mu jaar Euh, nga gis yu bare yoo xam ne dañ koy tuddee neexal fekk ñëpp xam nañu ni ci biir administration lu yoon dàq la hmm. maanaam dañu li ko indi moo di république euh, li ñuy wax république mooy mooy res li ñëpp bokk loolu dañu ko tëggul ba mu ne méngoo ak li nga xam ne mooy bu Sénégal ñun ñu refondation bi fi tubaab bi jógee dañu dem ñoom ñu remplacer leen par ay sénégalais mais état bi ñoom nañ ko tëggee woon muy boobu te xam nga état colonial Sénégal mosu ko digérer mhm. ndax société sénégalaise mosu koo nangu daf ko mës a résister ndax la bu doon boom nit ñi di leen daan di nangu seen alal ak yooyu loolu nag moo continuer ba après colonisation sengoor jëm na si li mu mën waaye askan wi nekk li mu nekk résistance boobu moo indi tey malentendu bi nga xam ne moo nekk diggante l'état mhm. ba ku dugg ci état rek say mbokk dañu naan ah moom kat dem na foo xam ne mën na fa wuti ay jumtuwaay mën na fa am alal mën na fa am te ñu ngi xaar ci yow boo ko amee nga indi ko delloosi ko si ñoom te boo leen ko joxul ñëpp mere la ndax dañ naan mën na ko. loolu ngay woowee un état importé mais euh, mal mal aimé euh, dëgg la ñun état bi ñu yor euh, tubaab ñoom ñoo ko indaale woon te ñun dañ ko doon xeex. Euh, te ba léegi euh, na nga koy leeral tamit ne am na ñoo xam ne état rek la ñuy liggéeyal euh, li ñëpp bokk mais ñoom fa la ñu jaaree ba nekk ñoo xam ne ñu woomle te tey loolu ñëpp di si teg bët imam suñu wax wàllum guerre si état bi si administration ni muy doxee loolu ñëpp mën nañ si teg bët tey gis nañ tey pour nga am yenn kayit yi foo nga neexal ak ak yooyu loolu moom xam nañu lislaam lu mu daax la mais léegi nan la ñuy méngalee ñun Euh, suñu suñu diine bi ñuy woote ak suñu état yi ni muy doxee. waaw xam nga ñun danoo am ay problème yu bare bare bare waaye xam nga ger moom euh, kilifa moo koy xeex ger kilifa moo koy xeex xanaa xamoo ne même suñu politique bi ñuy def sax dafay encourager guerre di jënd nit ñi façon la ci guerre kaay ma neexal la nga woteel ma façon yooyu gis nga foog yooyu fekk dañul nit ñi du ñu jël duñu ñu mukk di geraate te loolu malheureusement kilifa yi ñoo koy def tey président de la république ak ñi mu àndal beneen borom parti borom doole ak bu mu àndal ñooy jënd jigéen ñi di jënd xale yi loolu dafa xaraam dafa ñaaw dafa dafa tilim te xam nga ger euh, boo xoolee xadis bi ci yonent bi wax wax na si sax xadis yu bëri mais bii dafa dafa ci wax benn xadis boo xam ne man dama jàpp ne ñii ger xamuñu ko hmm. ak ñiy geraate yonent bi dafa tàmbali rek na laana allahu yàlla rëbb na. génn na si yërmandeem. rëbb na. c'est-à-dire maanaam gerkat bi ak kamiy ger direct safara la ñuy dem. maanaam kii ger ak ki ñuy ger. kii ger ak ki ñuy ger. maanaam man su ma joxee alkaat ñaar téeméer pour mu bàyyi ma ma dem. waaw ñun ñaar ñëpp. waa xam nga xam nga terme bi yonent bi jëfandikoo. waxul bàyyi leen. bu leen def wala bu leen jege. mais def na yàlla rëbb na. arrachi mooy kii ger wal murtachi ak kañiy ger hmm. ñoom ñëpp la yàlla rëbb hmm. tey fi ñu toll ni amul fenn fooy dem ci réew mi lu dul ger gaa nga fa hmm. te kilifa yu mag yi ñoo dàq ger billaahi wal kitaabi am na fi ay immeuble yu taxaw fii ci réew mi ci nger la taxawee surtout ñi nga xam ne ñoom ñu ngi inspecteur yaa ngi ger ñu ngi leen di ger vraiment Euh, dama dégg benn inspecteur bu ñu wax ne dafa dem euh, doon euh, daal toppatoo benn société. Hmm. ñu tegal ko malet boo xamante ni ay millions ñoo ci nekk. Hmm, hmm. yàlla dimbale ko mu delloo malet bi. xam nga koo xam ne danga war a tey ñu téeméeri millions yu taxaw ci saa si. mais kooku bu ragalul yàlla foofu nan lay def. mais bu ko jëlee rek na ko wér ne safaraam la jël. kon léegi euh, Cheikh. Mm-hmm. liggéey bi nga def def naa liggéey yi gën a am solo ci la bokk. mais livre bi tamit dafay dugg rek ci cadre waaraate. Mm-hmm. gis nga waaraate du soppi société. Mm-hmm. mais alerte lay def. fekk kilifa yi jëluñu ay dogal yu am doole. ba pare ñoom ci boppam ci seen bopp ñu teg dogal yi ci seen bopp. ger gi du fi jóge ah loolu de euh, am na solo lool. Khadija wala ni ma koy def <laughs> Khadija. monsieur damay rejoindre imam rek ci ci li mu wax parce que je pense que ni corruption moom guerre bi bokk na ci jàngoro yi nga xam ne war nañ koo dindi ci Sénégal. parce que journaliste yi dañ leen di guerre dégg naa. ah waaw ah. am na ci forme de corruption bi am na ci am na ci am na am na am na fépp am na fépp am na fépp kon am na ci donc ci ci ci ci ci ci métier boo dem rek am na ci euh, man laaj bi ma ko bëggoon laaj mooy ndax essayer na approché waa OFNAC parce que je pense que livre bi quand même hmm. war na leen mën a euh, jëriñ na mu fa waxee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, homme politique yi parce que ñoo ngi dem ci ay élection ci élection présidentielle hmm. te buñ ne corruption en général dafay bokk comme ni ko imam waxee dañ koy fekk bu baax baax a baax ci langue politique bi ndax jëm nga leen approché pour xool ñoom naka lañ mën a jëfandikoo téere bi ba lu jëm ci wàllub euh, corruption duñ ci laale beneen bi moom mooy ci sa livre da nga def euh, euh, analyse ci processus su guerre bi maanaam du temps de Senghor de Wade Abdou Diouf ak tey ki nga xam ne moo fi nekk moom mooy Macky est-ce que ci jàngat yi nga def yëpp mën nañ xam bu fekkee ça a été fait ci ban nguur la ñu remarqué di corruption ci la gën a ëppee ak ci ban nguur lañu gis ni corruption wàññeeku na foofu. Euh, Mhm, bëggoon naa ko laaj également puisque téere bi daf ko tënk ci cinq yoo xamante bu ci nekk expliqué na à peu près waaye te lu mu bëgg fësal ci biir euh, li nga xamante ni moom mooy jàngat bi man euh, fi mu ko bëgg par rapport ak euh, résultat wu lutte bi nga xamante ni moom nga abordé si livre bi yan défi ak yan limite tey ji le Sénégal jàkkaarloo lu jëm ci wàllum guerre ak it bu nekkee mën nga ñëw également ci lu tax nga suscité question boobu di laajte lu tax mu am comportement bu ambigu euh, doxalinu euh, askan wi. Euh, Khadija dafa laaj OFNAC est-ce que approche nga waaw approche bi moo di am naa fas naa yéene d'ailleurs dédicacé ba pare benn exemplaire boo xam ni bëgg naa demal sama bopp jébbal ko présidente bu OFNAC soxna si mu nekk contribution ndax ci biir livre bi wax naa ci lu bari ci OFNAC mhm. ndax OFNAC wane naa ci ni jumtuwaay bu baax la ci ni ñu ko tëggee Euh, am na bépp euh, kattan ci xeex ger bu fekkee bëgg na ko def. Mhm. te maa ngi fàttali sax ni. ah bu leer loi bu baax la. loolu wax naa ko te wane naa sax ni xëy na président Macky Sall moo ko créé 2012. waaye 1999 la ñu ko defaroon bind ko ba mu yegg ci jamonoy Abdou Diouf. mais nag Cheikh li imam wax dafay ñëwaat de. Mhm. président tey leer loi bi dafa leer naañ mais président su ko neexee mu néewal doole of nag. looloo tax mu néew te dama ko sax wane ci livre bi ni naam jumtuwaay la boo xam ne mënoon naa def liggéeyam. waaye politique daf ci dugg ba nasaxal ko ba mënu koo def mm. ndax wane nañu ni rapport bi mu njëkk a génnee te présidente Nafi Ngom Keïta nekkoon fi rapport boobu kenn mënul laam-laamee ni mm-hmm. liggéey bi mu waroon def def na ko mm. waaye dafa def mu mu laal ñoo xam ne ñii dañu nekk ci keppaaru président Macky Sall bi ñu leen jëlee ba yoon teg ci euh, loxo ci seen kaw ba ñu waral leen yóbbu moom président moo leen génneewaat. ah nommé leen foo xam ne daanaka moo di. Euh, bu leen kenn laalati te wane naa ni effectivement bokk na ci problème yi tax ger gën a lalu ci réew mi. lu ñuy wax impunité. Mm-hmm. maanaam wóor na ma ni lii bu ma ko defee dara duma ci fekk. ndax kenn du ma kenn du ma saytu waaye bu ñu ma saytoo ba jàppi ma yi tamit. dinaa am ko ma interveniral moo xam politicien la wala marabu wala leneen lu mu mën a doon loolu jàngat naa ko ba nga xam ne bii. waaw euh, euh, of nag donte lu baax la. Euh, mais mënul am résultat. ndax ah Khadija dafa laaj lu lu am solo tamit nee na. Mhm. tey yow si sa jàngat diggante. président Senghor président Diouf président Wade président Macky Sall si ban nguur la guerre gën a tare waaw euh, boobu jàngat bi ma koy def dama si dugg si ñaari wàll dama jël trajectoire ñoom ñeent waaye ma xaaj ko ci ñaar yu bokkul président Abdoulaye euh, Senghor ak euh, ak Abdou Diouf ñoom laa boole ci séquence bu njëkk bi. Mm-hmm. naam guerre amoon na ci réew mi kenn mënu ko werante parti bi fi nekkoon parti la aussi bu doon utiliser administration. Mm-hmm. pour ses propres intérêts. Mm-hmm. waaye boobu seetlu nañu ni administration bi ci boppam kuréel yi ci gën a mag direction yi. du ñu woon ay politiciens ay commis de l' administration la ñu woon yoo xam ne yii intérêt général la ñu doon liggéeyal doon donte léeg-léeg ñu def leneen waaye à partir de 2000 dama wane ne ci la am benn genre cassure ba administration léegi mu nekk administration boo xam ne politique daf ci dugg ba infesté ko mm. ba administration bi loolu nag ci président Abdoulaye Wade la commencé waaye ci fii ci nguuru Macky Sall ci la gën a fës ba nga xam ne daanaka dafa law ba structure administration yi yi ci gën a am doole foo ci laal militant politique moo ci nekk boo xam ni week yi dana dem defi ay ay meeting am dem jël alalu tat nag ku koy def forcément ci alalu ressource publique nga koy jël oto wu état bi ngay jël essence su état bi ak yooyu loolu li muy li muy am ci jeexital ci li imam wax léegi moo di corruption boobu bu amee ci administration askan wi di ko gis ci suuf agent public yu ndaw yi nekk ci ci circulation wala ci bureau yu ndaw yi bu ñu gisee corruption bi nekk ci kaw ñoom it dañuy am tendance su ajuster seen comportement ak ñi ci kaw. Euh, léegi donc maa ngi wane nii bi ci kaw rek. mooy mhm. expliquer bi ci suuf. bu amee ber ci kaw dana am ci suuf. te loolu loolu loolu loolu euh, am la mais euh, man dafa am lu ma ba résultat yi la. Mhm. ajara di laaj. Mhm. est-ce que tey xeex bi ñuy xeex guerre am na résultat non xeex bi amul résultat. Hmm? li tax amul résultat mooy dañuy xool ni réew yu bari Sénégal ci la bokk bu ñuy def xeex guerre. dañu koy def souvent ci contexte changement politique. boo déggee message yu foor yi rek ñu ne danañ ko xeex danañu def nangam mooy régime dem na. Mhm. beneen bi ñëw bëgg dindi crédibilité wu ñu fi jóge wala bëgg jàpp ay adversaire politique am loolu réew Afrique yu bare dana fa am waaye Sénégal seetlu nañu ni mhm. bi président Abdou Diouf demee Abdoulaye Wade ñëw def na ko audit entreprise yi audit yi débouché ci ñu débouché leen ñu ñëw te itam di ko président Macky Sall defee gis nañu liste vingt cinq bi nga xam ne moom la CREI yi defoon mhm. liste boobu dañ ko teg de côté ah. jël si ki ñu bëgg a jàpp jàpp ko ah. mhm. ñeneen ñi bi ñu ñëwee ci président Macky Sall ñu bàyyi leen loolu wane na ni guerre bi volonté dañu koy wax amul volonté politique bu tax mu mën a bi nga xam ni gàllankoor la ci xeex bi moo di ñi kuréel yi war a xeex ger maanaam système de justice pénale bi fi nekk ñoom ci seen bopp maanaam justu Sénégal ñëpp nangu nañu ni justice la boo xam ne bii nasax na tey justice boobu xëy na guerre am na fu nekk mais justice mooy kuréel bi ko gën a war a xeex waaye ci biiram bu fekkee am na ger ba union des magistrats du Sénégal bis bu la ñu wax dénoncé nañ ko dafay bâtonnier de l'ordre day tax ba ñi waroon xeex guerre bu ñu amul kattanu xeex ko xeex boobu du mën a jëm kanam beneen bi si am mooy dernière contrainte bi mooy contrainte social nit ñi ci seen boppam <coughs> askan wi dañ leen formé wul pour ñu nekk ay citoyen Sénégal ñëpp dañuy bind ni citoyen lañ muy baatu tubaab mais doo ko mën a tekki ci ci suñuy kàllaama ba ñu ni république la ñu yor ay citoyen la ñu état bi nit ñi xam nañ ko ba jàpp nañu ni rek état leneen la loo xam ne bokkul ci ñun république ku ci gën a muus ba yegg ca loo ca mën a amee rek mën nga ko indi ci say askan pression sociale bi ñuy teg ci askan wi ci fonctionnaire yi pour ñu dem jëli alal indi ko bu la sa famille laajee dara nga ne amuma ko ñu ne na dafa ñàkk fayda ñeneen ñaa ngi koy def ak yooyu loolu itam ni ñu jëlee jàppee état tant que changé wuñ ko ba def refondation dafay tax ba nit ñi euh, euh, euh, Cheikh gis nga li ngay wax ni solo su man maa ngi fàttaliku nit ñu ñu tàbb ko imam premier ministre waa këram di sabaru waaw fii bu ñu la tabee ministre dañ ñi dañuy ñëw kii kii maanaam c'est une société corruptogène mhm. tey da ngay nekk directeur général fenn nga am salaire 2 3 millions ñu commencé la tuddee la lii parrainé la lële marrainé la lii yow xaalis boo fan nga ko jëlee il soo nga dem ah? ñoo lay sàcc donc c'est une société corruptogène euh, boo xam ne mais euh, cher man dafa am lu ma lu lu ma jàpp tamit euh, loo lu am solo loo loo xam ne dama ko gis ci téere bi mooy ñun imam ñun amuñu culture Euh, état république ak citoyenneté ñun culture yooyu il faut ñu ñu ñu tabax ko te Cheikh léegi daf ko wax par exemple baatu citoyen baatu tubaab la nan lañ koy tekkee si wolof nan lañ koy tekkee si pulaar ñun yooyu dañu si war a liggéey ba pare euh, maanaam mu doon loo xam ni non ba pare. <laughs> aywa yow ñoo bokk mbuus yeggale <laughs> y en fait euh, professeur comme fi fi fi Ajara daanelee foofu laay waxee parce que moom ñu ngi gis que ni euh, que ci livre bi euh, da ko diviser en cinq parties. Mm-hmm. cinq chapitres ci cinq chapitres yooyu wax nga léegi si wàllu corruption ci wàllu politique bi parce que selon vous yaa ngi wax ne que après l'avoir euh, lu on ne devrait plus voir ou parler euh, de la corruption au Sénégal de la même façon fan nga teg loolu ba pare beneen bi ci est-ce que de sóoraale nga li nga xamante ne keneen ki nga jàpp ne que moom mooy corrompre nit ki bu ko defee mi ngi wax ni que teraanga Sénégal slogan bu nga xamante ne ñun ñu ngi koy utiliser te Euh, mënuñu def différence entre corruption ak teraanga sénégalais. donc loolu il faut nga. aywa euh, loolu lay jeexale parce que waxtu bi jàpp nañu. exact ñu ngi lay déglu Cheikh. waaw laaj am na solo euh, bi mu njëkk a wax. ah non c'est bijou lu am solo lay laaj. <laughs> c'est notre bijou. <laughs> li li ma li ma tax ma ni boo ko liiree ba mu jeex xëy na li nga xalaatoon ni mooy guerre dootoo ko gisee de la même façon. Mm-hmm. c'est parce que dafa nekk livre jàngat dëggantaan xam nga mm-hmm. guerre daanaka kooko laaj mu am lu mu ci mën a wax. waaye dama ci dugg duggin boo xam ni euh, dafay dafay wax li ko sabab dëggantaan pourquoi ñu bëri bu ñu liiree dañ naan ah man kat maa ngi doon yaakaar ni nangam wala lii laa doon def mais xaw ma woon ni nii lay doxee. Mm-hmm. donc approche vraiment compréhensive la boo xam ni dama bëgg même institution yi xeex guerre ñu xam ni lii. nii la tëddee mm-hmm. mais aussi homme politique yi nga xam ne ñoo war a ñëw pouvoir am na ko ko laaj sànq ñu ngi ci contexte électoral boo xam ni mm-hmm. bëgg naa même candidat yi nga xam ne ñu ngi bëgg dem parce que dem naa ba ci yoonu yokkute xool li président Macky wax bi mu nekkee candidat ni noonu lay def waaye bi mu ñëwee gis na ni mënu ko def ndax phénomène bi dafa complexe mm-hmm. ma bëgg ñii fi nekk aussi bëgg jël réew mi ñu xam ni bu ñu toogee système bii la ñu jàkkaar lool ndax bi dana metti boo ko comprendre lul doog fi mën a jëlee donc askanu Sénégal mooy li ma wax sànq ci représentation sociale yi. Mhm. Euh, complexité wu ger bokk na si sénégalais yi ni ñu du culture nag. parce que imam wax na léegi même suñu religion dàq na ko mhm. donc bu doon suñu culture rek suñu religion kenn du fi def guerre mais dafa am ci loo xam ne nii noonu la askan wi di doxe tey du sax lu leen gënal mais genre verni la loo xam ne dañu gis politique yi di ko doxe homme politique yi di ko doxee ñu gëm loo leen ni réew mi yëpp noonu lay def mhm. ba nga jàpp ni boo deful ni ñëpp yow yaa yaay ñàkk fayda mhm. wala yaa dul jot mais Cheikh léeg-léeg yi si ñun ñii la ñuy jógee euh, yéeg ba si kaw di def yi nga xam ni parce que man loolu laa doon wax keroog samay ay étudiant euh, Khadija man leen Euh, différent ba lan moo utalee kii sàcc milliard ak kii saw si mbedd mi pour man ñoom ñaar amul différence mhm. ñoom ñaar ñëpp seen yoon newul ci askan wi mhm. waaw kii saw si mbedd mi yoonam newul si askan wi moom na def li muy def rek dem mais kële moom it yoonam newul si mhm. askan wi moom na jël affaire rek roppat dugal si poosam mais kii sàcc milliard daa faat ay bakkan parce que milliards yooyu ay bakkan ñoo ci waroon a dund. léegi loolu la ñuy wax en a yar kii bu ngandi bu mag daa am. de degré la. xam nga li imam moo waroon dem xëy na ci l'école yi wala fi ñu ah. waroon yare kii di saw ci mbedd mi. ba bu ñu ko yaroon moo nekk ci loolu mooy moo waroon amaana milliards yooyu tamit mënoon na jëriñ dem jëndi ay armes kenn xamul moo waroon mais man fi may waxee rek mooy. faale askan wi. Mhm, très bien parce que affaire lool moo am solo tey kii saw si mbedd mi moo leen ciy poussé aussi. oui mais mais kii saw si mbedd mi yoonam newul ci askan wi. parce qu'on dit yoonam newul ci moom na def li muy def rek dem yoonam. Mhm. kii saa ci milliard tam yoonam newul si askan wi na ko jël rek dugal si poosam. Mhm. te affaire bi euh, nit ki moom imam boo moytul kii euh, kii saw si mbedd mi su nekkoon place kii saa ci milliard. moom it dina jël milliard dina jël milliard moom. <laughs> Euh, téere bi nag vraiment dama koy. digal ñëpp daal parce que téere bu am solo la euh, euh, kii waa waa waa waa l'Harmattan ñoom ñoo ko mu ngi librairie Harmattan ak yeneen yeneen euh, mais téere bi téere bi dafa am solo si jàngat bi si Cheikh def si wàllu wane ger mm. ñun fan la toll si ñun si suñu état ak suñu république te Euh, yoo xam ne la ay cancer la mm-hmm. yoo xam ne tant que dindiwuñ ko yooyu daf ñuy sànq te imaam leeral na ko mm-hmm. non seulement cancer social la mais imaam tamit nee na cancer la spirituel si sa diine dafa yàq sa diine ndax suñu borom mën na la euh, mere Cheikh Tidiane Dièye vraiment delloo ko njukkal si euh, liggéey bi muy def liggéey bu am solo mm-hmm. boo xam ne vraiment suñu boroom rek moom moo yor fayam tey dañu am benn benn xaarandi la ñuy def euh, Karajo balaa ñuy dugal tey sunu sunu gan bu mujj si euh, tutela vraiment laal na population bi yëpp parce que tamit du ñëpp am 2000 francs pour dugg pour seetaan làmb ji. métti na torop mais def nañ la tout ba seetaan ko. man dama yaakaar ni technologie su fekkee ni dem nga ba koy expérimenté da ko war a expérimenté leneen boo xam ni pas événement bu mel nii parce que dégg nga làmb joo xam ni boo ñëpp ko àddina bi yëpp ñoo ko doon suivre. kon boog su fekkee ni ngi koy expérimenté da ngay def ay combat yu ndaw ba maîtriser ko nga koy soog di def. dafa laaj au moins même si ça doit être quelque chose qui doit être on doit le faire au Dieu et ça doit être quelque chose qu'on les met en clair. dëgg la dëkk bi avancé na le monde évolue bien vrai mais que nag du Sénégal. Euh, par rapport au combat je crois que dañ kaa war a delloo fa mu nekkoon parce que c'est ça le charme de lui là. parce que ñi ci kontaanul bëri na. lamb nañ ko daan seetaanee bu njëkk loolu la xam nañ ko fi bàyyi na ko maam ya daan defee. ñi nga xam ni kontaanuñu yow mi nga xam ni yow yaa ko defoon kontaanuñu am nga beneen attitude beneen wax yoo xam ne war nga wax ak ñoom nga jégalu leen ñi leen maa ngi jégalu di dinaa seet nan lañ koy améliorer ak yooyu mais quand même doo ñëw di leen busqué parce que seen xaalis la ñu fay. moom moo ne nañ jënd connexion bu fekkee connexion yi na problème ñu koy a répondre ci anam tamit. pour mun a seddal xolu nit ñi daal waaye jënd connexion ba pare yow amoo ci loo bëgg moom loolu moom c'est pas normal. ki nga xam ni dafa jël xaalisam paas bëgg a seetaan combat bi benn du xaalis ba mu ñàkk mais li mu bëggoon gis ci gisu ko la comme li mu bëggoon gis gisu ko kooku déjà naqar la. kon nañ seetaat làmb ji bu fekkee bëgg nañ ci avancement ñi nga xam ne am nañ doole te mën ko na njëriñ ñi xalaat ñi nga xam ne mënuñu ko. comprendre nga buñ fekkee bëgg nañ làmb ji jëm ci kanam. parce que xaalis bi nañ ko teg fële parce que 2500 xaalis la xaalis euh, du xaalis mais nag lu waroon gis nga xam ne o njabootam yëpp ñu toog bu ko seetaan seetaanu ko kooku dafa des ci dafa lool rek dafa doy ci naqar. mais nous on avait payé le pass mais on est beneen paas ça fait deux fois. ko jëndee dinañ ko seetaan normal mais des fois tamit moom connexion yi moy loolu. c'est de la la bu fekkee làmb ji pour mu dem ci kanam du noonoo koy jëmale ci kanam déedéet parce que kon ñun dootuñu ci bokk nañ ko wax te dee nag. bu ñu demee bay tëggati combat nañ ko tëgg bàyyi ko ci tele bi ñëpp seetaan mais comme niñ ko jëlee nii pour nit ñi di jënd ay connection di ko seetaan parce que moyens bokkul du ñëpp ko mën man daal d'accord ma ci bu ma sañoon daal ñu bàyyi ko ni ñu doon ko defee. Karajo delloo ko njukkal ni ñuy delloo njukkal euh, Baara First Class moom moo ñaw lii euh, El Hadj Mansour moom euh, notaire la boo xam ne dafa noppi waaye ñoom notaire yooyu kenn titularisé gu leen. Mhm. ñoom la fi toogal tey. Mhm. loolu la. absolument ñaata ngeen. 22. ñaar fukk ak ñaar. Mhm. lu tax kenn titularisé gu leen. waaw question bi nag dafa nekk question boo xam ne ñun sax daf ñuy jaaxal parce que concours bi damay fàttali ni mosul am ci profession wu notaire. donc dañ ko organisé pour la première fois en 2013 euh, fekkoon na boobu 1817 ba 2013 notaire notariat mi ngi existé Sénégal. Mhm. nit yi di nekk notaire te amul concours amul examen amul dara par cooptation rek loolu. donc bi ñu demee ba 2013 ñu organiser concours bi 800 personnes présenté wu. Mhm. jeunes techniciens du droit ay juristes yàlla def ñaar fukki tur ak ñaar génn si man mii si laa bokk ak 21 autres donc loi bi dafa wax ne boo defee sa concours ba pare boo jàllee yaa ngi am statut notaire stagiaire. Hmm. comme avocat stagiaire. wala et cetera donc avocat stagiaire comme notaire stagiaire trois ans de stage ngay def ci cabinet. Hmm. Mhm. soo paree dañ la war a installer notaire donc ñun pare nañ suñu stage depuis 2013. kenn mënuñu installé. mais kan moo leen war a installé ordre bi. décret non non non bi ndigal li mi ngi jógee ci kilifa yi mooy. président de moo war a signé benn këyit. mais est-ce que du ordre bi moom moo war a dox loolu wala yéen. ordre bi ordre bi war na ko mën a dox. mais aussi ordre bi du du du parce que kenn du utal sa bopp wuju ñun ñii bu ñu demee ba ñu jox ñu ndigal ñu ber suñu daara yor suñu cabinet bopp ñi composé ordre bi ak ñun ñëpp. dañuy nekk ay genre concurrent kon ordre bi du seen intérêt yéen ngeen dugg si. amul leen en tout cas en tant que ordre bi en tant que institution mën na nekk intérêt mais ñi compose ordre bi di ay notaire yu am seen cabinet loolu du seen njëriñ. ñu toll ñaata ñaata notaire ñoo am si réew bi juróom fukk ak benn. ci 42 cabinets donc je rappelle que nous sommes 15 millions d'habitants. 15 millions maa ngi fàttali ne Dakar yëpp 22 cabinets notaires moo fi am. Mhm. te boo xoolee dëkk mel na Abidjan rek kese. am na plus de cent notaires. léegi yéen maa ngi fàttaliku aussi ne ñun état du ñu fay salaire. c'est-à-dire que man euh, ak sama ay morom kenn kuñ këyit rek lañ soxla. benn këyit léegi lan moo bloqué affaire bi. bloqué bi li ko bloqué mooy silence bi tradition bi fi amoon 1817 ba 2013 def en sorte que ku nekk notaire da ngay fexe parce que liggéey bi yàlla mooy def barke te def na ko ci. yéen bind ngeen président. fu suñu lettre amul fu mu demoon bind nañ président. tontu na euh, leen président tontu wuñu mais premier ministre bi recevoir nañu ministre Ismaïla Madior Fall. lu mu wax moom. bi ñu dégloo au début il n'avait je pense que déggul woon problème bu baax parce que xamul woon parce que notariat li fi nekk mooy dañu tàmm silence. liggéey bi kenn xamul sax lan dafa mel na rek genre ay. waaw day def. déedéet déedéet profession wu silence la en fait. kenn xamul lan la dëgg la dëgg la loo xam ne bëggul coow. bëggul ah mosu ah, du ma ne bëggul coow. Hmm. parce que coow dara kenn bëggu ko. mais coow mus ci am en tout cas. coow gulet coow am gulet coow am si parce que ñi fi daan nekk. bon coow amoon na ba ñu ràjjee fii ay notaire ak yooyu. mais loolu loolu ay ay cas exceptionnel la. Hmm. coow mu ngi war a am si bi nga xam ne ni nit dañu def ay concours comme yeneen profession yi. Hmm. gendarme bu def concours pour war nekk gendarme. kon daal yéen léegi président bu defoon décret rek yéen ngeen. suba ñu commencé ñu <laughs> jël ay nit ñu ñuy liggéey. waaye léegi président lu tax defagul décret bi. parce que dafa am ñu téye ñu téye loxo président ci waaw. ñan la dafa am ñoo xam ne si boo xoolee presse bi am na ñu def ay article naan mhm. ministre bi ñu recevoir le professeur Ismaïla Madior Fall jël décision ne day créer ñun 22 lañ mu nar ubbi 42 office 42 cabinets yu bees mhm. bi ko waxee rek subitement dañu xëy gis ay article anonyme ci presse bi mhm. naan ministre bi dafa bëgg a yàq profession bi mi ngi bëgg dugal ay jeune ci profession bi te waxtaanu si ak kii te maa ngi fàttaliku ne diriger diriger dëkk waxtaan ci la léegi boo euh, waxtaanee ba pare yow ministre léegi dafa dellu ginnaaw si loolu moo xoon delluwu si ginnaaw mais moom li ñu d'après les informations yi ñu am li mu war a def def na ko mais liggéey bi diggante bi mu jugee ministère ak fii ñu wax ak yow dafa yéex yéexaay boo xam ne. mënuñu ko teg ci cadre lenteur administrative. waaw ah léegi yéen euh, pour yéen solution bi lan la. solution bi euh, Tunkara mënoon nañ def comme ñëpp ne danañ. grève de la faim grève la faim. waay grève de la faim war nañ mais yi amuñu pour chaque fois dem di immolé wu ci buntu pale bi pour am li ñu soxla. pourquoi. loo xam ne nii amul benn incidence sur trésor public amul benn incidence sur budget état pourquoi ñu imalewu duñ duñ dem imalewu duñ sacrifié wu duñ def dara silence bi nga xam ne moo taxoon 1817 ba 2013 42 notaires kese am fi on a décidé de rompre le silence. def ngeen demande d'audience ak nañ te li tax ñu ñu euh, nga baal ma rek maa ngi lay dagg sang bi mais dafa am lu ma bëgg expliquer boo gisee ñu ngi ñuy wax nekkul suñu cas personnel kese moo tax ñuy wax. comme ñun nous sommes la première promotion de ñoo xam ne ni amuñu famille notaire. Mhm. ñu bëgg dugg ci profession bi. yàlla dogal concours bi ñu ko defee ñun ñoo njëkk a génn ñun saa dañ ko vivre comme responsabilité. Mhm. c'est-à-dire que bu ñu seetaanee par suñu ñàkk fayda wala suñu ragal wala yaafuus wala toog di xoole ba ñu sacrifier ñu ça veut dire que ñun non seulement sacrifier nañ mais sacrifier ñu bépp génération bu naroon ñu war a dugg ci profession. El Hadj Mansour Diop looy jeexale maa ngi maa maa ngi wax ne euh, sénégalais yëpp ñi ngi seetaan loo xam ne nii. Euh, conséquence yi kenn mënu ko imaginer parce que chaque jour ñu ne am na sénégalais yu nekk ci ci ay Syrie ñii nekk ay jihadisme ñi di dugg ci géej gi di dem ñii di nekk ci banditisme ay jeunes sénégale yoo xam ne désespoir moo leen ci dugal te tey jii am des jeunes sénégalais yu def di jàng fi ñu war a jàngee am diplôme yu ñu war a am def concours bi ñu ko waree def pare pour ñu war leen nommer. Mhm. ñu bëgg leen exposer au même désespoir. 2016 2013 ba léegi. waaw loolu de moom mi ngi xaw a yàgg léegi. c'est un mauvais signal qu'on donne à la jeunesse sénégalaise. maa ngi liggéey sama activité bopp mais pas en tant que notaire. sa activité bopp lu mu doon. conseil juridique. conseil juridique waaw parce que parce que yoon man li may xaar euh, gouvernement juste c'est le papier. aywa amul dara loo xam ne nii xaar naa ko su ñëw. yow da nga asthmatique. <laughs> waaw. c'est quoi le rapport. <laughs> yow docteur bi. en tout cas docteur House docteur House. gis nga sama diagnostic bi. Eh, delloo ñu ko El Hadj Diop mais nag dafa wax lu am solo quand parce que vraiment euh, fi jaar dafa am solo euh, am xam-xam jàng def concours génn. Euh, vraiment. Euh, mais yu mel noonu dama foog ni xam naa président jotagu si. Uh-huh. Euh, te bu si jotee bu soobee yàlla. lu mel noonu dina ko indil saafara parce que benn décret la te comme ni mu ko waxee so du amul incidence si budget du administration moo lay jël du dara. ñu daganal la rek nga am sa office dem. surtout yi xale yu bees ñëw am beneen. surtout enjeu yi sax si loolu parce que bëri na ñu ñuy nax ci ci wàllum jaayum kër. oui ak gis nañ ni dëkkuwaay bi fii c'est un peu un problème ku nekk dañ lay jaay terrain à plusieurs personnes donc yooyu question yooyu ñoom dinañ ko mën a. et ñoom euh, président Fodé Diop yow euh, sama wóolare ñoom euh, ñoom tam war nañ si bay waar. xale yi. ñu xajal leen parce que imam loolu la alxuraan di wax naan maanaam boo leen nekkee si benn benn kuréel ngeen neefa fa boof ko suñ leen nee yaatal leen. Mhm. da ngeen war a yaatal. wa ida qila lakum tafassaxu fi lmajalis fafsaxu yafsaxi laahu lakum boo leen yaatalee rek yàlla si boppam mooy ñëw yaatalal leen yéen tamit mm-hmm. ñun léeg xam nga dañuy xat dañuy tu vois day affaire bi rek nii nii te loolu moom euh, du du du yërmande daal il faut il faut ñu ubbi ko quand parce que xale yi euh, ñu mérité loolu lañ. Euh, Ablaye lii la ñuy jeexalee Ablaye lii moom saa su ne si wàllum xarale yu bees yi moom si lay wax Ablaye di la nuyu la dal la ziar. maa ngi lay fay di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp. waa Pikine yëpp di waa deuxième robine ah sama waa kër yi foofu ñoom Ibrahima Diop ah ñoom Souare ñoom ñëpp di leen ziar. pay per view. mooy lan. pay per view comme son nom l'indique donc c'est benn technologie bi nga xamante ni 1985 la démarré aux États-Unis par WWF benn combat de catch. pay per view c'est-à-dire payer pour regarder maanaam da ngay fay pour mën a seetaan. maanaam daal li ngay seetaan du gratuit. du gratuit doo toog ni sa télé rek seetaan ko. Mhm. te euh, ni ñu ko xamee fii. Euh, si ay pass internet ak yooyu lay jaar. exactement loolu sax yaakaar naa ne Sénégal moo njëkk def erreur utiliser pay-per-view ko ci internet. Mm. pay per ci ay jamono wala dëkk yi nga xamante ni dañoo développé. gaa ñoom ñoo ñu ëpp débit internet bu baax ñoom sax ñamewuñ ko jaarale ci internet. Mm-hmm. dañ koy jaarale soit via satellite. soit via câble réseau câblé te mhm. bii nii sax lu tax mu gën a ñàkk am dégâts par rapport ak bi fi njëkk am c'est parce que ñii dañoo créé woon beneen alternative bi nga xamante ni dafa jaaroon ci TNT mhm. muy réseau câblé bi nga xamante ni foofu dafay stable mhm. mais internet bi dafa am ay préalable yoo xamante ni ah. il fallait mu am fi ah, parce que ñun au Sénégal ah. couverture bu xaw a normal Dakar la yam boo génnee Dakar dem Tivaouane Peulh tu as du mal euh, tey euh, combat bi am nii euh, bala Gaye 2 ak euh, Modou ñu def ci pay view bi yow affaire dafa laj waaw dafa lajj léegi euh, lan moo tax mu lajj mooy li ma doon wax rek gis nga kër boo koy tabax boo bëggee tabax dix étage da ngay def fondation bi nga xamante ni dafay jaar yoon. Ah, fond da ngay def fondation quinze étages def dix étages. exactement je m'explique tey bu fekkee da nga bëgg a jaarale benn mbir ci internet plateforme bi nga koy jaarale da nga ko war a tënk de sort sorte que ay millions de personnes bu ñuy attaqué ndoo plateforme bi plateforme bi du craché du am problème tu premièrement deuxièmement yoon bu muy jaar gis nga autoroute à péage dañ ko def de telle sorte que dafa am nombre de oto yi fa mën a jaar te du am embouteillage yow nga jël benn kanaal bu ndaw nga bëggu fa jaarale débit bu bari mm-hmm. donc image yi dafay ralentir image yi dafay bëggee mm-hmm. tu vois loolu mooy problème te amoon nañ fi expérience boo xam ni yàggul dara tu vois affaire jàllul ñu ñëwaat ki man de waxoon naa lii du baax man aussi waxoon naa ko j'ai fait des vidéos defoon naa ko ci bële ne leen bon en fait ñun paree guñu. déedéet pour accueillir technologie bi nga xamante ni ci internet lay lalu pour dem. gën nga tey ji surtout surtout man fu ma bëggoon euh, laaj ko surtout c'est par rapport ak euh, diffusion bi parce que gis nañ ni que quand même commencé woon nañ jaay ay code et mais même foofu noonu dafa am défaillance parce que code yi mën nañ ko partager tey. plus de personnes yi nga xam nombre de personnes yi xamante ni ñoom ñoo jënd ko ci boobu kese comme c'est-à-dire mën na nekk benn fraude man ma jënd sama sama code ma passe ko MLK MLK passe keneen donc de ce fait que day am beneen flux bu ñëw teguwaat ci nombre de de de kii yi nga xamante ni non mais mais des défaillances défaillance la ci ci ci kii bi ci paper ci paper view bi parce que même pour pour combat gris bordeaux bi je m'explique même combat wu bordeaux bi ak euh, kii Balla Gaye 2 c'est ce qu'on a pu remarquer que ni dafa amoon ay défaillance par rapport ak nit ñi nit ñuy partager ko ci te duñ ko te dañ ko jënd légalement y a aussi à revoir xaw ma nag si combat bi ils ont tenir voilà c'est des failles quoi voilà. Euh, euh, Adjara le vrai le vrai problème di woon sécurité. Eh, non nit ñi moom kontaanuñu nit ñi moom kontaanuñu puisque Vox Pop bi wax na ko donc voilà. problème accessibilité parce que pour mon cas personnel euh, dañoo jënd code ñun mais ba léegi mënuñu dugg ci plateforme pour mm-hmm. seetaan combat bi te en plus de xaalis de waaye te en plus de xaalis bi ñu fay pour code bi c'est-à-dire 2500 yi dañoo yóbbaale suñu 4000 francs crédit donc ça aussi c'est un autre problème gis naa ñi commencé di envoyer message pour restituer xaalisu ñi nga xam ne jot nañ ko kii mais ñun ba jotaguñu suñu suñu 4 suñu 6500 donc loolu mais dugguñu ba tey dugguñu ba tey c'est ah, combat ba tey on n'a pas eu accès euh, à la plateforme donc ça c'est un bon problème après leneen loo xam ne ñaaru nañ ko waaw xam nañ ni Balla moo daan mais après beneen problème boo xam ne aussi ñaawlu nañ ko mooy après la sortie du promoteur. Mm-hmm. Mm-hmm. dafa génn ne moom yàgg na investir ci ay mbir di perte donc sénégalais euh, li ñu def nii c'est pas grave. donc euh, ouais c'est un manque de respect je trouve parce que. oui mais quand même c'était de Sénégal. pare guñu comme comme ni ko Abdoulaye waxee euh, Dakar rek mu am connexion te en plus connexion bu Dakar plus c'est même pas normal c'est même pas stable ci mbir yu mel ne ci combat de lutte loo xam ne sénégalais en fait ñun ñoo ko moom suñu bopp donc bu ñu demee ba ñu ne pour seetaan combat dañ leen koy jaay on n'est pas contre parce que c'est du business mais que ñu def de telle sorte que euh, sénégalais yi nga xam ne dernière minute la ñuy jóg ñu mën dugg ci ci plateforme yi parce que sénégalais ñëpp xam nañu dernière minute la ñuy jóg. Mm, et puis dañ ne sax dafay yàq peut-être charme lamb bi parce que lamb tamit dañ koo xamoon si ñëpp toog en famille seetaan ko à la télé wala nga dem stade nekk koo xamante ni da nga bëgg lamb dem seetaan ko donc peut-être technologie bi aussi est-ce que sénégalais yi ils sont prêts. xaar te ba tey waxuñu ñaata lañu ci gagné en terme de. y a y a y a je pense que oui on peut répondre par waaw Sénégal yi pare na mais mm-hmm. à condition que mm-hmm. affaire bi jàppandi mm-hmm. parce que dégg nga Khadija lu mu la wax moom pare na def na si 6500 am mais tey su jotoon image yu normal du jàpp dara moom dinañ yéen ñaar professeur moom tey moom xam naa day gëstu rek daal di ma nii mais professeur man xam nga fi may gisee peut-être ak ñoom Khadija fi ñuy gisee euh, du du du benn. Mm-hmm. mais euh, droit la aussi kenn ku ci nekk am fu fu ngay gisee mais euh, man damay je me mets si côté ñi nga xamante ne ñoom ñooy organisateurs yi parce que tey xam nga Sénégal on a tendance à chaque fois bu ñu defee bu ñu organiser benn affaire rek dañuy bëgg jël lépp rek mu daal di easy mu daal di yomb jii production bu mel nii. bu ko defee euh, da ciy baax tey télé yi nga xamante ne ñoom ñooy tele Sénégal yi. ñuy xaacu euh, di ci fay yenn xaalis yi parce que ñun tey comme ci niveau tele bi la ñu toll. Mhm. donc dañu war a xam ne que ci niveau tele bi la ñu toll donc euh, sport bu ci mel nii nga fay mbër bu ci nekk plus de cent million mhm. def nga ci xaalis tele Sénégal yi waratuñu taxaw di xaar. promoteur bi ñëw non seulement di leen indil li nga xamante ne moom mooy moom mooy lu ñuy dawal ci seen télé ba pare wëlbatiku di leen fay. loolu il faut que ñu arrêté ko fii rek la am Sénégal nit voilà euh, munoo ñëw tey jii nga am sa événement non seulement di fay télé bi ba pare télé bi moom bu paree diffusé ko yow nga am programme. Mhm. ba pare yow fayoo. am droit de dimat. non mode de bi euh, mode de transmission bi d'accord c'est du business ñoom dañuy loo xam ne day arranger seen poche. voilà mais euh, peut-être que business bi mën nañu ñëw ni que business bi nañu d'accord ni mhm. nit bu organisé bëgg évolution loolu évolution la. Mhm. mais évolution bi ci naka lañ koy defee ci la ñuy ñëw ci li nga xamante ne moom loolu Abdoulaye di wax. Euh, peut-être que foofu noonu les responsabilités sont partagées du côté wu producteur bi. bi organisé ARTP am na ci wàll. Mhm. Orange am na ci wàll. donc satellite bi. donc lu ci bari dafa am les responsabilités son partagées comme li ngay wax sànq wax nga ko ci sa ay vidéo ci internet bi avant. période combat Gris Bordeaux euh, ak Balla Gaye euh, boobu joni joni moo ko moo moo ko defoon muy loo xamante ne boo xoolee ni que business mu ngi dox parce que lii yoon la mhm. yoon la pour que sénégalais yi commencé upgrade au moins mais d'accord mais bijou loolu loolu loolu nit di benn aspect wu mbir mi la mais attention attention ah, le consommateur final moom li mu joxe li mu fay dañ ko ko war a dem man dama fay pour am accès à un combat de lutte man loolu dama ko war a jot. ak yow yow yow mi nga xam ne yow yaa may laaj xaalis boobu yow yaa war a jël say matukaay ba man. mes intérêts en tant que. waaw loolu laa wax noonu les responsabilités sont partagées peut-être que loolu ARTP dinañ ci joxe encore prétexte bi waa CNAF joxe mooy sénégalais dañoo tàmm dernière minute. mais boo xamee ne Sénégal dafa tàmm dernière minute mais nga def en amont nga prévoir en amont yow yaa ko war a prévoir parce que yow yaay laaj xaalis bi yow yaa koy encaissé yow yaa am warugaru euh, garantir intérêt wu ñi nga. Ablaye lii euh, Imaam am na loo si bëgg wax. non man li may wax ci waxuma ci lii mais lamb ji ni mu bi mu tasee. Mhm. agression bi dafa ah. métti. mais du lu bees nag imam mais mais bii pas dafa dafa ñaaw parce que vraiment gis naa vidéo yoo xam ne ni ñuy carré taximaan yi di di di di nangu àllalu nit ñi vraiment loolu ñaaw na ba jéggi dara ah loolu de mais imam nag du lu bees ah làmb ji moom làmb ji moom dafa ànd ak violence bu jeexee ah loolu moom vraiment war nañ si bay waar euh, Ablaye lii yow yaay jeexal waaw bon li may jeexalee rek mooy comme ni ko Bijou waxee rek sama genre yi dañuy saluer initiative bu PAP parce que bu mhm. demee bay innover di dugg ci ay technologie yu bees c'est à saluer mais il faut aussi ñu comprendre mbir du jékki-jékki rek parfait aussi mhm. dañuy am ay failles dañuy commencer moo tax tout le temps ngay dégg V1 V2 V3 suñu mhm. téléphone ñu naa naan de leen mise à jour suñu application parce que dañuy jàng gis ay peut-être yu si nekk les cas mise jour yi mooy permettre mu am rectificatif tey demee aux États-Unis événement sportif yi fa gën a mag yëpp pay amul benn télé bu koy def mhm. gratuitement. Mhm. mais il faut aussi sénégalais dafa tàmm tamit taf yëngal doo jël benn groupe de personnes rek nga ne nañ jëlee bi nga xamante ni peut-être deux ou trois millions de personnes dañ koy seetaan après tuy taxe des gens que ñoom dañoo ñenn dernier moment. il ah loolu moom euh, dëgg la àq la boo xam ni danga nga ko ameel nit ki moom saa yoo euh, jëlee xaalisam da nga warugalu li tax mu jox la xaalisam nga matal ko lu ko may rek danga lekk àq te lekk àq moom euh, du ci kenn delloo njukkal Ablaye lii ak sunu mbooleemu gan yi fii ñëwoon tey sunu naataangoo yépp ajaare ay dara mbàkkee sëñ Aydara Mbacke Daarul Moxti. waaw kooku soxna Naata Mbacke ñu ngi suivre émission bi. ndeysaan ah kooku moom. sama nee na ñu sax dañ maa habillé. lii di ñëw yi may sol ñoo ma koy jox. ah <laughs> ndeysaan ndeysaan sëñ Aydara di ko di ko ziar kooku kooku sama sama wëllëre waa daaru yëpp eh, ñoom sëñ Abdog eh, soxna. Eh, ñoom soxna Ndike. Ah. sunu wëllëre yi tey ñi àndaloon yëpp sunu naataango yi Ajari Ajara Bonade Cissé ak MLK Modou Lamine Ka Khadija Khadija si imam Mohamed Lamine Dramé ak Bijou Ngone ñoom ñëpp dañ leen di delloo njukkal ni ñuy delloo njukkal sunu ñawkat. moom mooy euh, Baara First Class fii ci euh, Liberté 5 sunu ay technicien amuñu seen fay ñun ngeen di gis rek ñuy wax nii waaye ñoom ñooy def liggéey bi nga xam ni moom moo tax ngeen ñuy gis di ñu dégg tey Babacar Karajo jaañ moom moo nekkoon ci réalisation bi euh, sunu ay téléspectateur amuñu seen fay ñu nekk fële ci daar Moxti waa France waa Allemagne waa Brésil waa Bujumbura hmm. ñoo ñëpp ak Nene waa waa Paris <laughs> <laughs> ndeysaan ñoo ñëpp euh, delloo leen njukkal ba pare leen ñaanal suñu borom mu defal leen euh, jàmm xéewal ndimbal ak yërmande te loolu nag di fàttali li koy joxe mooy xam-xam jëf ak jikko ju baax dig daje ñëpp ajuma bu soobee yàlla wasalaam